télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir a saytu sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. TV jox la kàddu. mi nga mën a wax sa jaar jaar. danga ko seetaan bu la dara raw. Mm. ba léegi téléspectateur Ladoum TV ñoo ngi fii ci terrain xar yàlla mu nekk. foire xar yàlla waa réel mu nekk seen quatrième édition waaw ñu taxaw ak un très grand champion ñu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur Ladoum TV ñu gis nga def sélection def benn jeune mâle ak ay femelles nga présenté waaw maa ngi leen di nuyu waa Ladoum bi di nuyu seeni internet ak seen i téléspectateurs waaw man maa ngi tudd xalifa Gueye nekk euh, manager u bergerie Al Amine agro business ñu nekk euh, Parcelles Assainies beneen bergerie bu mag bi nekk Guédiawaye marché jeudi en face euh, jumaa Sëñ Mansour waaw nga présenté ñu macha allah téléspectateur Ladoum TV gis ngeen euh, sélection bi waaw ñu ñu nga présenté ñu nag euh, sélection bi maal bi ak ñi nga xamante ni si moom la moom la ñoo indi. waaw xar yi ñu indi nag moom am na loo xam ne ñoo ko juddule am na yoo xam nag ay femelle la yoo xam ne dañ leen recruter euh, femelle bu ñuul bi ngay gis ni moom mooy Aïda Ndiaye waaw mooy Aïda Aïda Sylla moom sama benn xarit. docteur euh, Ousseynou moo ma ko jox kii di moom sëtu Waalo Mbooj la kii kii di Fabi euh, di doomu Boy Badou di sët si magistrat Boy Badou bu baay Assane kii doomu Abu Trika la dañoo jël ñaari sëtu Elias ñu fixé leen ñu jur jigéen ñu jël ko teg ko si Abu Trika champion CEP 2021 jeune mâle mu taawloo kii kii dañoo jël sëtu waalo boo xamante ni dañ koo teg ci sëtu Bachir mu jur femelle ñu jël femelle bi teg ko si Abu Trika mu mu mu jur kii kii nag moom kii mooy Nimzat euh, nouveau model boo déggee Nimzat nouveau modèle Nimzat boo xamante ni dañoo jël sëtu Bachir bu jigéen muy koddu ñu jël ko teg ko si Diop si Diop si doom macha allah papi Dieye yaay ji di doomu yaay ji di doomu Elias ñu teg ko ci. mu jur femelle ñu jël femelle boobu teg ko ci héritier héritier doomu doomu roi Bachir ak Amina mu jur femelle ñu jëlaat femelle boobu teg ko ci Nimzat mu jur faalaay kii mooy faalaay Balde gintee cere ndawal. ku la ko ñamal. gintee kon boo déggee loolu mooy nouveau model la parce que boo xoolee kii ossature bi ni nga koy gisee nii ak wet gi. bu la boo ko xoolee boo dëgg dëgg dëgg ak yax bi bu nee la Nimzaat moo ko jëm jur doo ko gëm ndax kii euh, nouveau modèle la prototype la boo xamante ni euh, dañ koy sante yàlla di si gërëm nag suñu papa sa mbaab moo croisé jox ma ko waaw moo tax xar bu ma fonk la waaw. ah téléspectateur Ladoum TV gis ngeen Falaye mii kii li mu nuroog Nimzaat formam. boppam kii daal coppi collé ak Nimzaat macha allah macha allah gis nga. boo xoolee yax bi ak tànk yi ak bopp bu rëy bi nga xam ne loolu ci héritier la ko jëlee loolu niru ko Nimzaat Nimzaat indi na ko ci guddaay bi indi na ko ci hauteur bi mais yax yi moom waaw loolu ca tëggin ba la croisement mais paa yi ñoo ñu dàq croiser de. waaw paa ay ndaanaan lañu waaye. paa bu ay gone dar tamit day day day jëli démb waaye da koy booleeg lu tey. comme li mag ñi di wax démb moo waral ñu naan tey boo jëlee lu démb indi lu tey actualité kon foofu gis nga rek résultat bi lii lay doon. Serigne Cheikh Al dañuy dañuy woon jotaayu ay gone kese dalul xel waaye jotaayu ay magi kese dalul xel waaye kon ñaari génération yi même bu ñu bokkul dañoo war ànd. parce que dañu nekk ay génération yoo xam dañoo complémentaire ah téléspectateur Ladoum TV dégg ngeen wax jooju am na solo nga fàttali ñu bergerie fan la nekk ak numéro téléphone waaw bergerie bi nag mi ngi nekk euh, Parcelles Assainies unité trois en face poste de santé bi ak beneen bu mag bi mi ngi nekk euh, marché jeudi en face euh, jumaay sëñ Mansour mais profito nag di remercier suma rakk yi muy Modou di Baye di Lebu di Limaamu ak bàcc mi nga xamante ni moo fi nekk dama jàppale ak Cheikh ñu des si bergerie bi nga xam ne mënuñu ñëw ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax ak Boy Badou sama turandoo papa bi nga xamante ni vraiment suñu rakk la nekk suma turandoo papa mais pare nekk suma taalibe lépp loo xamante ni bëgg nañ ko ñu nekk ci kon du ñu mën du leen sant leen gërëm ñii nag ñuy indi njabootu Abou Trika gi la ñuy annoncé parce que abu après Fila la daanu woon mais bàyyi woon fi ay xale mais 2023 rendez-vous 2023 dinañ gis. doomu abu yëpp dinañ génn bu soobee yàlla incha allah. ah téléspectateur Ladoum TV loolu dig daje la incha allah nañu xaar ba 2023 nga jox ñu numéro téléphone. numéro téléphone bi di 77 134 07 wala double 262 00 00 waaw loolu mooy numéro yi. may télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV